déterrer un cadavre mosuñu ko gis fii sulli sulli cadavre ah maanaam eh, génne néew mosuñu ko gis ñun mosuñu ko dund bu ma amee j'ai cinquante quatre ans mais je n'ai jamais vécu ces genres de choses là. Bon, moo ko def kan bon ñi defee kii bi parce que euh, on peut pas les situer ah, on peut pas les situer parce que bu ma juddoo ba léegi man maa ngi fii eh, dëgg la dañuy un cimetière Kenya mais cimetière bi cimetière Kanyalan. la découpage bi moo ko yóbbu cimetière Kenya parce que le formager que vous voyez là ici le premier cadavre c'est un gars de Kanjalan que bon je crois que comme autorité yi nañu gis euh, en même temps que nous je crois que maintenant l'heure a sonné mmh. et ils vont réagir bobu am na certitude euh, parce que le maire est venu euh, avec l'équipe je crois qu'ils vont euh, terminer la clôture parce que la clôture bi impérativement il faut que clôture soit égale Nous avons am gardien qui euh, tout le temps et puis aussi nous euh, limiter les heures de d'enterrement par exemple nous sommes bon heure sangam ou bien 18 h ou bien 7 h on arrête les enterrements. Wow, li qui fi ñëw da ngay am naxar Nous mënuñu xalaat ni nit dina ñëw sa morom nit gaañu ñu ñëw pour denc ko ci lieu. yi nga xam ne fii daanaka noppalu kay ba yàlla bu mu lay daanaka dernier jugement bi nit ñëw sulli néew pour lan wàllu aduna warul tax ba nit nga dem sulli néew mënuñu ko comprendre parce que gis nañ fi ay cimetière yi nga xam ne ak feneen clôturé wuñu ko kenn du fa ñeme jege boo rombee si sëg yi ñaanal rek nga am donc mënuma comprendre loolu moo tax euh, il y a trois semaines d' ailleurs maire Abdoulaye Balde ñëw na fi pour seet naka la ñu améliorer conditions yi nga xam ne nit ñi fu ñu nekk euh, cimetière yi euh, si wàllu sécurité si wàllu parce que ndox buy taw léeg-léeg day wàll di ñëw dugg si cimetière bi donc bu ñu fi egsee jël na entrepreneur science tenante ñu commencé liggéey gis ngeen niñ mu ne leen dafa bëgg ñu bàyyi au maximum ñetti bunt donc ñetti bunt yi entrepreneur bi gis ngeen ko ñëw na fi donc xam nga nit bo am yene bu bon rek même bo clôturé woon def ay porte dina tepp ñeu def lu muy def donc ñun dinañ ci gëna a euh, góorgóorlu pour que au niveau des cimetières mu gëna am sécurité parce que buñ fi ñëwee mais effectivement demander na population pour ñu trouver un gardien mais ñu melni même gardien mënul leen dara parce que ku nar jëf ju ñaaw rek ak pexe boo mënti am diñ ko ñëw def amuñu lu dul ñaawlu ko donc euh, dinañ ci gëna taxaw incha di ñaan def yu mel nii vraiment bu mu fi amati parce que ñun Casamance dañu respecter suñuy néew Sénégal dañu respecter suñuy néew donc lii mënuñu ko nangu tey mënuñu ko nangu ëllëg donc di ko ñaawlu ba ñaawlu yam donc bu ko Balde yëgee daf ñu dépêché man ak secrétaire général ak entrepreneur bi pour ñëw xool luñ ci mën a def dans l'urgence